comme niñ koy defee saa su ne fi ñu ñëw nag suñu kër la te tàmm nañ di fi ñëw ah, nee naa leen benn année 19 ba yàlla def corona ñëw muy mbas mi ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jële waaye si diggante bi saison bi tijji na fi ndeysaan ba sama jàmbaar ji taalibe Serigne Saliou bi moom Matar Diop mu Serigne Saliou mu defati li nga xam ne mooy ay maninam li ma leen wax chaque jour ni leen man laal yoon du ma laal lenn te normal te tamit nee naa leen du ma wax si ay kasaw wala loo xam ne teguma sama bët daal jëf ma gis moo waral man ma sawar chaque jour di ñëw si moom di waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom lay liggéey li muy liggéey nag yàlla dafa def tamit xiirtal ko si li nga xam ne moo di làmb li nga xam ne moom la ñuy yëngu mu siy def ay preuve am ñu koy gis moo tax chaque jour ñuy ñëw di ko seet si kooku nga xam ne moo di Matar Diop mu Serigne Saliou gars yi naan ko jantal maara waaye léeg-léeg da koy bañ ndax nee na dëkk bi réew yëpp ay jantal maara lañ dañuy wax Matar Diop mu Serigne Saliou si noonu nag si lañ koy dalalee rek ko Kourtou daal di koy jox mu nuyo ak askanu nguur eh, ak ñi nga xam ñoy seetaan biir arène ci seen youtube bu mag bobu nga xam mo moo xew si jamono ak laa leen de leen doon petit kon kon dañuy def suñu jàmbaar ji mu daal di nuyoo su baaxee rek ñu dem Babacar Bass waaw di ziar jantal maanaa rek di la jot wàcc waay waaw ñu ngi ci si bu baax di la ñaanal jamm ak salaam di ko sakku ci yow di jël suñu nuyo suñu khalifa bu tedd bi sëñ Muntaxa Mbàkke di nuyu kilifa diine yépp di ziar ñëpp di baal ak ñëpp di fetu suñu kóllëre suñu soppe yi ak suñu xarit yi ak suñu ànd jàmm ak fépp suñu gigaan ngi bi di ziar ñëpp di baal ñëpp ak di ñaan yàlla suñu borom yàlla baal ñëpp ak ci barke Seydina Muhammad ñoo ngi ñaan baax yàlla yàlla jégg suñu bàkkaar yëpp te baal ñu solo ki nga sama cameraman bu ñaawal bi ndeysaan borom donc mère Jóoba ji tarkaala macha allah course bu mag bi si Sénégal noonu rek si dañuy poussé si waxtaan bi jaratu ñuy guddal fii tàmbalee ak moom rek mooy len ñu gis ni saison bi gàtt na lool ak bëri yi nga xam ne woon nga leen ba yi nga xam ne daanaka egsi woon na mu am ay gàllankoor lan nga ñu si mën a wax. waaw xanaa di dool di sant yàlla rek di xam ne jàmm bu bëgg may yàlla ak dogalam di wax ne bu yoon jeexul waax su lu jeex ndax àdduna bi moo demee nii comme ñëpp la seen mbir yàqu kon du ñàkk tamit ñun suñu mbir xaw boobu bokkaale ci yàqu bi lii lépp rek passe temps la rek mu nekk lu xaw a métti lool mais sant yàlla rek delloo lépp si loxo yàlla suñu borom yàlla moo yor lépp waaw métti na trop nag ndax waaj nañ ay combats yu métti waaye am na lu ñu jot a ñam ci ay combats mais am na combats si nañ ko waaj mais ci biir waajtaay borom dem loolu mais nag sant yàlla rek. waaw ba tey rek euh, ki nga xam mooy Babacar Kossou rek nga gis boo euh, gisee bërëb bi nga xam ne moom lay liggéey tubaab fakala ndax nee naa leen nit ki li nga mën loo ah, ah, ndeysaan jarul ngay dem si beneen dëkk jàmbur di ko fa liggéeyee ndax nee naa leen ku ko xam ne kii li muy def dakaa mën ndax mu ngi toog fi nga xam ne dëkk muy ginnaaw raay ci mbuur ci biir këram fi nga xam ne moom la ay mbokkam dëkk ay waajuram dëkk fi mu nekk fi ak ay rakkam ak famille yëpp di liggéey liggéey bu mucc ay kon boo koy wër doo dem naan ah dëkk sàngam la dëkk naan ah kii kan nangam ndax dafa wóolu boppam moo war a génnul fi nga xam ne mooy fi la dëkk muy biir mbuur fi nga xam ne moo di quartier ginnaaw raay fi nga xam ne ndeysaan si wetu arekaaro onkaat bi nee la soo jugee fi nga xam ne moo di ah, ah, stade euh, fi nga xam mooy Caroline Faye mbedd mu mag bi nga xam ne moo jëm fi nga xam ne moo di areka antenne ba fa ngay wàcc daal di jubal ba yegg si si këram bu dee tamit dangaa jugee fi nga xam mooy croisement Kaolack boo ñëwee ba si antenne bi wala si arekaar bi garage sa xel ko foo laajte kër wala maxu rek ah gars yi daal la fay indi ndax nee naa leen moom du làmb kese lay liggéey du football kese lay liggéey day faj lépp lay def te li ma gën a neex si moom mooy li nga xam ne bu la xoolee xool sa jàngoro xool ne la carrément ni mënuloo si dara danaan la carrément kat ah demal xoole leneen lii mënuma ci dara ndax loolu la nit di waaye li ma leen wax sànq rek bu ko neexoon mu dem sampi ko feneen waaye sampi ko feneen si fii mu dëkk fi la ko sampee tu mun a du teew ñeen nataal ba tey rek Babacar dañuy xuus si ak moom gis nañ ko ren dafa weesu département bi de dafa dugg national <laughs> loolu lan la waaw loolu liggéey la xam nga manam nit parfo bu neex mo jaay boppam man wóotiwu ma benn wilaay xëccu ma benn daraja li nekk ci man yalla moko def ci man mu neex nit ñi ak mu naqari leen li bu len wax rek fi la tambale me dañuy bënn frontière yi ci kàttanu yalla suñu borom ta dess na lo lepp ay ma la rek ñaan yalla yalla suñu borom guddal suñu fan rek gën ñoo may fit gën ñoo may puissance ci li ñu liggé rek benn ndong-ndong bañ ñoo dal rek wante moy liggé rek waaw bëgg nañ frontière yi dem ñëwaat di wane ay résultats di ko toogaat di ñu gis ren nga dugg si journée bu mag boo xam ñu gis la ci si ay performance ñu gis lan Mara am fit moom Matar Diop mu Serigne Sall di yóbbu mbër ba si biir arène boole Sall di dóor mbër di leen saaga instant day toll xam day lan ne ne luñ mën ndaw rek la gis nga ni dañ koy gëna bëgg bisam man non lay ya, dundé man nit bo def bo rombé ay buntu kër yu bay romb ay dëkk yu bay ñëw ba ci man mu xébu mi ne ma dégg na la sama mbir ginnaaw yalla ya dama lay gëna bëgg sa bis te mbër ki ka jaaxal rek moy ki gëna gën a bëgg bisam ndax bis dina tollu fo xamanteni ne si ne yow mi and ak mbër bi bu la ci mbër mi gënee nek man na am heure man na am mais dañ ci gëna nek nekk mi moo tax léeg-léeg mbir mi demee noo xamante ni si man après man du ma ko comprendre ci leen gars yi di ma ko envoyé naan ma xoolal li ñu doon def ak xool li ñu doon wax mais du dara bëgg bëgg-bëgg rek bëgg-bëgg dafa doy waaw ci équipe mag bi ba duggati bi alhamdulilah sant yàlla bu gën a yokk rek daan nañ ko def nag mais xañ na ni mu amee ampleur ni yi demeewul noonu mais daal nañ dugg waaw daan nañ dugg nag mais ren moom dañ ne maanaam kuy moom bu matee rek maanaam defal boppam wala lolo ko lolo amna solo ba tey ñu won la tamit ak ben ikri bo xamni tay tey ci si Petite Côte euh, seen jaar-jaar mu nek lo xamni lu gudd la am ñu fa demee won ba tey jii ni nga jël ay xalé kese yo xamni amu ñu dara seen seeni mo tu sax 100000 francs mo toog seen ginaaw di dar dardari di dem di ñëw yàlla di delloo ci defal jamm nan ngay dundé ak ikri bo wa bu dé mo neex lebal dama koy wax waxati ko ne ku lu du ko démb ak ku yaakar ne ëllëg gone gi dina nekk ci dara di nga jéem a lebal bu ne man boo gisee may sonn ci mbër yu ndaw yi ñu may ëppal sa importance sax ne ko mbër yu mag barki alxuraanu karim ndax seen kase néew na te seen i jàppale tamit wax dëgg yàlla néew na mais bu ñu ma wóoloo ba ne ma yow lañu wóolu yëkkati lu mu néew ak muy bari te ko sama loxo ne ma lii lañ am même bu nekkee ne benn 1000 francs sax dama koy téye taxawoo leen nag ni may taxawoo mbër bu mag man xooluma borom 1 million xooluma borom 2 millions xooluma xooluma borom dix millions man yëg-yëg gi nekk ci man rek man moom laay doxee boo muy yëgee ba ne ma am dégg naa la samay mbir ginnaaw yàlla damay jàpp ci loolu noonu xam ne yow kat ëllëg naa la jàppale te yàlla tax wante tamit léeg-léeg si ne si sax sax jar na ko quoi hmm, waaw da ngay sa laaj ci lu bari. Hmm. est-ce que nekk di jàppale mbëri ndaw yi en cent pour cent nii da taxulaa gën a tardé si côté mbëri mag yi. non non c'est que mag yi maa ngi jëflante ak ñoom. wante nit ku nek bisam la am nit ku nek bisam la am ndax boo jaarewul ci raf do dox kon lo gis nekk daf lay tarbiyu man damay dugg fu nek motax mo ma ëpp puissance képp ko xamanteni ci ya ngi ñaan ci walu mara ya ngi ci ñaan mo ëpp ci puissance téeméeri junior ndax man damay dem di fekke di di fekke lay xew nango présenté bu taxaw ne affaire bi man la loolu ñu koy def yombul mais damay damay taxaw affaire bi man la yow sama ñaata victoire nga compté <laughs> yoo xamante ne damay boot damay boot mbër indi ko ñaata victoire. yu a yu ndaw compté woon naa compté woon naa 19 2019 la woon loolu tamit 19 de 2019 la woon 2020 yàlla def combat yu bariwul 2021 <laughs> bi nag ah ah, ah. est-ce que instant est-ce que taxawuñ si ay 27 yooyu noonu. Ah, waaw waaw la. Hmm. xam nga maanaam. koy topp tamit ni muy toppee gars yi man noonu daa koy toppee. voilà maanaam ki toog. di nga gis loo xamante ne si di nga ko war a di ki dem dina gis loo xamante ne si ne maanaam ki toog kër ga du ko gis mais nag dafa taxawee ci ñaari camp dafa taxawee ci maam kàttan nekk xale comme ñoom man li may def bu ma ñëwee taxaw damay jëmbal làmb man man làmb laay dund man bu ma ñëwee taxaw damay jëmbal ne lii moom fi indi waaw lii lii ëllëg fi nag da nga koy topp ba jusqu'à bout man buy neex dañuy ànd génnandoo buy naqare dañuy ànd génnandoo dama ñaan yalla muy neex nak nag xam mu mënta ñak moom mais dama ñaan yalla képp ku ma yëkk sa dërëm fekk sama loxo bi ma rayenté yow and yow dugg rayenté yow ànd ànd ak yow génn mais dafa yomb trop di yëkkati xaasam jox la ko nga yëkkati benn affaire jox ko naan ko demal dina bax wa dina bax mais lé léeg am na ay inconvénients yo xamanteni ci bo taxawul sur la terrain taxaw fa carrément li jàkkaaroog li nga xamanteni ci moy anniversaire bi nga wara a bëreel du xol ay débat déewam du xol ay dugum ak ay ak genn ak ay mbokam ni ñu farloo ci lamb ji non non loolu waxi téléphone man contre na loolu man lamb lañ wax da ngay lambot ba ci biir arène bi da ngay lambot di xool système bi ba jusqu'à bout yalla suñu borom man la laa dénk victoire bi da yag na ko def yag na dem ba ci biir lamb ji fokk rañu man ta du benn du ñaar du ñett du ñent def na ko nit defati ko nit defati ko nit defati ko nit ngi dafa am fu ma tek teg damay àndee ba jusqu'à bout waaw moy lamb mère ñu gis na tamit nga and ak genn mbeur mhm. bo xamni ni duñu bañ sa tuddu ndax suñu suñun la bok muy pàccam kéro bu nga ñëw daa yaakar na est ce que bërëb bi dara desati na fi ñeen ñëw affaire bi lool kim non dajé muy zilu sali bis bi jaraloon ko lu ne ñu dem nañ ba dernier minute gaay naan leer naan leer bo mu jigi yalla def ngeen dem ba am ndam loolu nan ngeen ko liggéey non mas ngeen sax doo tudd tur damay tudd tur man ragal ma zil dama porte feneen pàccam dama porte feneen garaaw mas ngeen do tudd tur ndax xam nga euh, lambu folare wante ko dal ruus da ki nga xamante ci na moy sama waji ngey wax muy grand man sama nit la ndaysan bi lambu ji weso fekk ni fi ay waxtan yu xawa ki bam set ci ma sax ñu waxtan lu xawa bari mais jël won décision daan ci lambu man man mom leer na ma leer na ma mbokki leer na mbokki paacaam ñi doon def nag jéem na xam la naan zil sa day ñew wante lambu joj non dañuy nax seen mbokk lambu joj ba nit ñi démé la la wax ba nit ñi démé ba ni ñi démé ba ci biir aadama billahi wallahi taala lu leer taxawu ko ma ne ko làmb ji ci biir géew ba lay leer da loolu mo amna ci naa ci salé wagné ko wat na waxat na mo loolu non ndax tok na fi ci sama mbaar bi ñu waxtaan ma ak mom duma ko neub comme xass nga ba wax rek waxtaan nañ ci lu bare bare bare bare bare bare kuy yëkëti ay sayaram di ko def ci làmb jëj non am de autorité yi jappalé la ay xaas bu bari nga def ko ci làmb jëj mu jaral la làmb ji mu jaral lako ndax nu wo la sa dinaaw gi la ñaar yoon suuf kon kuy taxaw naan laamu jooju noonu usine bu tale nii ak pàccam da ngay wax la neex rek boo laajee pàccam laamu jooju noonu lim ci daj moom xam na ko. mystique mystique dëgg daal am na fa waaw mënu cee ñàkk. doole am na fa mystique am na fa lépp ñëw daal moo tax moo tax daal lépp ànd nañu ànd nañu lépp rek ñëw nañ daal ñun daal. Ah, yàlla suñu borom uturaal nañu jox nañu ndam jaar na fam daan jaar. waaw di ñaanal gànnaar si ñaanal pàcc am yàlla suñu borom gën koo dégg ay ndam. ndeysaan loolu am na solo ba tey mais tamit ba di dañuy duggaat ñu gis tamit ba tey Dakar fa la ñuy duggaat waaw ah, dañuy duggaat ndax dañ daan gis yi petite côte nga rangale ñetti champion champion yëpp génn ndam ñu gis ne Dakar ren. dama faa dugg dama ñew amu reetaan dañuy léral am leer nga dugg fa yóbbu ñaari mbër si benn tàkkusaan ah dem da nga ah, dem jamm benn bi dé ah dama lay jaxase mbër mi ñaar igri no non waxé non loolu xam nga mm-hmm. tey boo waxee noonu dañ may sétane yow mm-hmm. sa site bi wax yalla ma sha allah ah, léeg-léeg bis bu mag mm-hmm. day sul bis bu ndaw man dama koy wax di waxati dama naa leen man ñaanuma ñaari bis bi dafa mag bi dafa ndaw ndax du ma mën a concentré wu ci bu ndaw bi bàyyee bu mag bi non non loolu sama ngor mooy mu ko ndax ka ndaw ki mu ngi ci yoon di raam di def te kenn mu ngi en chemin daanaka booy xolam yoonam amatul wërtu am gàkk-gàkk mais ci ni ko tuddee rek nañ ko tuddee noonu rek comme concentré naa ci bee bàyyi naa ci bee xañ na noonu la ko yàlla dogalee mais ku ci nekk jox naa la cër bi ma la war a jox ku ci jox naa la cër bi ma la war a jox te ku ci nekk tamit voilà naa la la ma la war a dee mais fa ma war a jëm moom xam naa ne faw ma dem fa ndax dañoo déplacé ay moyens yu bari def ko ci man gaare fii oto mu di ma xaar ñu yëkkati ma yóbbu ma ba egg teg ma ci équipe boo xamante ne si ne maanaam képp kuy nekk mbër ci biir làmb ñaan yàlla bëreeg ñoom wala nga ñaar yàlla def ak ñemboo ñu boole ñaari équipe équipe Fass ak équipe Ndakaaru mu nekk ñaari équipe yu am doole yoo xamante ne si ay borom xam ñoo fa nekk ay borom xel ñoo fa nekk ay nit ñu xam làmb ñoo fa nekk dugal ma seen biir. kon foofu noonu erreur waru ma a tuuti ma ko faa damaa war a joxe lépp moo tax mu demee noonu man nii bu baax nag ki nga xamante ne si moom fa yóbbu sama xarit yi sama genn wàll jur sama may jaar ci gën a yokk ay ndam ak yooyu noonu waaw loolu rek am na solo tarkala macha allah si ay leeral yu gàtt la woon ak ñu doon tënk mm-hmm. waaye rek. baawkar bu bahere rek nga tënk ko foofu ñu dagg part boobu dagal deuxième partie bi comme mbër tarkaala masha Allah ki may filmer xam na lan mooy mbër moom mbër buñ ko xale gis nga ndeysaan gis nga jantal maaraam mu ngi xëcc drapeau gars yi dañuy daan di indi drapeau waaw dañuy daan di indi drapeau yi maa la <laughs> wax loolu mooy ngem ngemb ñëw tekki ngemb yi daal di la man bëgg ma waaw waat na waaye ba eh, ba tey rek Matar dañuy ñëw si cadre ah, ndax ànd ak mbër yomb na ndax mbër ñaare chaque jour dañu leen dàqanteel mooy dañuy wor ndax ànd mbër yomb na defal ko pare boo paree ndax duñ ko gisaat yooyu noonu daal yaa ma gën a xam. waaw xam nga maanaam nit boo bëgg yàgg ak doo ko jàppee jikko da nga koy jàppee yow sa jikko man noonu laay jàppee mbër moo tax pour ma réeroog mbër du xaw a yomb waaye nag dina am limite ak yow. ba xam ne kii kat nekkul ku ñàkk fayda nekkul ku topp ci ginnaaw nit nekkul koo xamante ne si loo waxanteeg moom bu subaa nga bàyyi ko ànd ak mbër yombul mais man du ma leen jàppee so seen jikko man li ñu baatale moom laay bañ mbër nangam laa mbër nangam laa mbër nangam laa mbër day def léegi mbër day def laa mbër day war ak mbër du nit ak yooyu noonu man yooyu laay bañ ndax damaa xam ne mbër liggéey la waaye dafa nekk na liggéeyu jàmbaar wante nag li nga xam si moom la ñëpp di ngawte ngawte ñu war nañ ko wursa def nag mbër daa war di sóoraale ëllëg mbër daa war di sóoraale ñi nga xamante ne si ñoo ko jàppaloon avant dara doon dara mbër dafa war a bàyyi bàyyiwaat xelam ci ginnaawam ba muy metti gannaaw ko jëndal sànni ak di ko jëndal njëgu fonde ak di ko forcer si entraînement mbër dafa war a bàyyi xel ñoo ñooñu mbër dafa war a bàyyi sëriñ bi koy ñaanal mbër dafa war a bàyyi xel seen waa koñ mais am na ci booy yu bari yoo xamante ne si bëggee seen carrière xaw a gàllu góose dañ du sàmm kóllëre loolu moo gën a gaaw fakastal mbër dañu am ñaari victoire ñetti commencé am buzz commencé am yeen iya, kan xarit yu bes wala ñu waxe neneen wala ñu doxé neneen fekk na du non du ñepp nak mais amna ci ño xamanteni ci si ne maanaam pour ñu sàmm coloré mom yomb wante man nak duma jappé nit man sa jikko yow man dama lay jappé sama jikko mais kenn du bu beut man benn mbeur yëguma benn mbeur ñëwu xol tek lo xamanteni ci manam man nekul man man mako ko non non duma la ko nangul jamais de la vie wante xamna dal daal liñ may kalaame si bari na trop bari na lool ndax nañu xamaat changewaat beneen doxalin te fàttaliku seen nitu démb ndax am ndaa toj ndaa taxut a bari nit da ngay dara boole kook leneen teg mu gën a jalu ndax ngemb mbër wër woyof ngemb mbër wër ta maanaam tuuti mbër dafa am ngemb lu yaatu muy pénc bu ñu nee pénc nag ñëpp a ci bokk loolu laa leen conseillé waaye xam naa ànd mbër moom lu lu jafe la ndax ci biir bi ngay liggéey ak ñoom ak léegi amul mbër moo xam ne def na la ci loo xam ne ba tey jii yaa ngi doon ko métti ñuy wax sax mais xam naa ne mën na see ñàkk sax ndax man ñu ma jàppale ci ay bëll dañoo xaw a bari mais am na ci nag ñu am kóolëre ñu may nekkal am na ci ñu am kóolëre ñu may nekkal te mbëri nag boo leen yaakaaree dof da nax sa bopp de <laughs> mbër fu ñu riir dem xam nga xam nga ne daraa nga fa de mbër yi toog nañ ci keppaar gu ne teen bu nekk naan nañ ci kon bu ñu la joxee ne ne la yowal rek yow yor sa bopp war nga am fulla ak fayda sa bopp xam ne li nga yor ndawul nit simple yi nag mën mu toog si yow na li nga yor kooku kooku. mbër bu ñu dem fu nekk rek na lu ko fa yóbbu mbër kay borom bopp la mbër kay bu màggatee faj wala hmm. uh, na solo ba tey hmm. waaye ba tey buñ génnee si cadre mbër ndax duñ ko fa yamale yëpp ndax ah. si wàllum mbër kese hmm. ñu li nga xam ne moo di newetaan yi ndax lepp espoir la rek nawetaan ci walu football gaay tamit ragne la ci bu baax a baax te instant yi ni fi ñu tok rek gis na gaay yi woote di rang de équipe yi est ce que léeg équipe yi wara a ñu fi dajé wa c'est que c'est que loo koy déere. sport si wàllu xëccoo. Mm-hmm. dafa am ma ci yalla dénk. non nga bëgg wàllum xëccu fofu wa wa xëccu manam mo moy doxal adina mm-hmm. lo gis xëccu la. wax na la ko fi waxate la fi loo gis xëccu la xëccu rek. Mm-hmm. xëccu rek sa télé bi nga nek sax ya nga xëccu gaay yi boo ne fee nekkee na nemm duggoo ci kër yu baax yi wala defoo kër ci këram nii eh, teg fi lu gars yi bëgg kenn du la seetaan waa dama dama lay wax rek mais faw ñu faw nga xëccoo ak ñoom doo ko man a am li nga bëgg faw nga dugg lu xoti bagage yi dugg ci làmb yi mu daj daj coono bu nekk doo ko am li nga bëgg mooy wàllu xëccoo xëccoo daal jeexal nay wax man lépp luy wàllu xëccoo dama ciy taq rib ba ci waaye lépp luy xëccoo laa la wax dama ci taq moom mm-hmm. waaw yamul football yamul lamb yamul dara politique lépp luy xëccoo man lépp luy xëccoo dama ciy dem ba jeex lépp luy cadre faj dama ciy dem ba jeex waaw lépp luy sangat ci wàllu yaram ak lu mën a doon luñ la mën a dóor ci wàllu kort luñ la mën a mën a dóor ci wàllu téye la luñ la ya a mën a dóor ci wàllu yàqal la man dama ciy dem ba jeex te incha allah rabbi bu neex yàlla dama ci am ndam ci kàttanu yàlla suñu borom ci barke suñu saal dama ci am ndam billaahi wallaahi wal kitaabi bu neex yàlla ma ci am ndam mataru jo musiri salumi alu na tay dafa baaw ka kursu yow duma ragal dama man limay def ba pare yàgg dugg toj génn naa duggaat toj génn naa duggaat toj ñi bañ ñëpp léegi dañ may tàcc ñi bañoon ñëpp dañ may taxaw di ma si fota léegi waaw sante ko yàlla gërëm ci sa yàlla loolu am na solo mais mais ba tey ñu gis ni ay bagage lañ fi gis de gis ay laar ah yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw si place liggéeyukaay bi kay faaw ko fekk fi waaw man nga fekk mais lii fii de gis naa la nga yor bale gi sànq ba tey di kii waaw kii mooy yi moom mooy yëngal yi moom kii moom kii moom kii moom boo laajee yi xam kii sax na la ci wax lu bari wante nag man laaj mu bari de tungu na du kese de non am na loo xam ne dañ koy dëxëñ moom hmm. waaw da wax fi nga war a wax waaw fi nga war a belum rek waaye alibi. mujj sa làmb àll bi yéen ñi bëgg naa génn si débat bi mu naa ma seen làmb àll bi man waxuma ay làmb ki. de bant bi yor ñaari kii yii ak gis sama gànnaay la sa gànnaay la moom mooy gànnaay waaw sama gànnaay la waaw li muy ñëw si ay làmb bari na seetloo ko xanaa kii li muy bari na de waaw bi nag moom bi am na yu ma ko gisoon waaw waaw benn la woon te dootu bis baa ko toll bis baa ko tolloon waaw. Ah. Mhm. Eh. mais ba tey rek waa ji drapeau bi nga samp nii waa ji combat bi yoon waroon na ko daanu si biir combat bi. kii ah. kii sama doom la. kii sama doom la kii ma rus di ko wax fenn jëru sax doom la. sa doom sama bis. mooy bi ñëw dénk ma ko. dénk ma ma jox ko. mais ba biir combat bi gis nañ la bi combat bi ti. waaw xaw dama koy xamal ne ko direct góor mooy daw sa yaram bi. dret moy daw sa yaram bi bu sa dret tangé faw ñu gën la ñaax na la gay nañ dama na ko joxoñ di ko wax ne ko gay na nga do ragal amna na jaar ko ma sax mom xamna naa mo moo aba dina ne kii sax la moo tax mu dem wax li man mbër dama lay ñaax ci côté yépp man mbër bo ragal sax ma la tekkil ngemb li nga takk yow man ma takk ko mo bëri te mutuma gën wali lii boo ragalee bu ma la ngembee ba paré ngay ko ñëngël man la tekkil li ma la takkal man mo bëri man man man lool yag na ko wax mbeur man yàgg naa laa takkal ngem ngay yógi-yógi man la hé boo ragalee nga tekki li nga xamante si man moom laa takkal man ma ñëw bëre loolu àll doon wala lu mu doon waaw loolu yëg-yëg la xamoo nit nit ci boppam dafa war am yëg-yëg ci li muy day am yëg-yëg ndax yëg-yëg mhm. day am yëg-yëg mhm. ci li def nit bu ak nit té limi muy ak mo amu ci yëg nako bay la leen présenté wu neexul de ak euh, bari risque ak ay danger présenté na affaire bi man la ak bari risque jogé kër mbeur ba sangap ko jogé kër mbeur ba takal ko ngemb jogé kër mbeur ba tok ci kanamu auto bi dug mom stade ñepp wër la naan la ay mu ay mu ah la leen tàppee du ko def de. <laughs> mais ba tey si loolu noonu si biir loolu gis nañ benn làmb gis nañ vidéo yi gars yi dawal ko si Petite Côte daanaka ñëpp gis nañ ko. <laughs> làmb bi mbër mi taxaw di la xaar ñu ñëw gaari oto di la xaar ngay waxtaan ak sa yaay mu lay tuuroon ndox waaw kooku moo may boot ma boot leen ñoom. waaw kooku moo may boot man ma boot leen man man ci kooku laay wiir man mu boot ma man mu ñëw boot mbër. gis nañ ne tamit si biir bi ngay génn noonu tamit wala dugg si oto bi yaa ngi jël benn xale. waaw loolu jiital ko teg ko loxo yooyu noonu noonu man dalay feebu wala la. am na léegi tamit yére am na xam ne dama naan kii sa yow yow sa yére ngay sa yére ngay wax noonu man waxuma ko. man li may wax mbëri rek. yow daal dama leen di topp dama leen di topp ba nga xam ni suñu waxee ma leen lii la maa ko fekkee man tamit li ma gis laa wax maa ko fekkee. waaw yaa ko fekkee. ah loo gis après ci laa mu jëriñ la ma fa gis ñoom la ñëpp gis waaye dama bëgg nga wax ma lu leer xale bi nga jiital teg ko loxo ma maire bi tuuloo la ndox nga jënd yooyu yëpp affaire yi lan loolu lépp daa bokk ci làmb hmm. loolu lépp daa bokk ci samay mbir te li nëbb moo ëpp li feeñ barki alxuraanul karim lii ay image la rek mais li nëbb moo ëpp li feeñ te ci kanam di nga xam ne li nëbb moo ëpp li feeñ mais bagaas yu bari nga yóbbu làmb te ñu ne lii daan bëri nekkul si làmb dañu dañu waaw lii daan bëri nekkul si làmb ñëwul sa làmb de yow leen neex rek laajal <laughs> kayak gereng daan dëgg dëgg fi wax yow jël nga sama daniel sarax yow yow jël nga sama dernier sarax eh, mooy nga daale ya, wax mbër mu fël ko bu nekk Guinée Bissau woo ko ko waru woon a laal loolu taxoon ak man wax ak man ne waru woon a laal ne yow bi dara na wax ak man jox ma ci sangal duma mais jël nga samay bagage yow mbër ñëw dóor ko mu daanu benn paa bu nekk gine nekk nijaayam nekk mu xaddam nekk wàlliw nekk wër wër na laal bagage waa jooju noonu kon bu ne lii daan mbër ñëwul stade dañuy sóob nit man ngaa ngemboo sa kër yor la ngay yor firnde bi dama lay wax rek dama lay leeral benn bi rek mhm. nit mën ngaa ngemboo sa kër mhm. yor say bagage lépp nekk am pekk mhm. nga ne tekk sa tànk ci biir arène bi doo xamante kaw nga nekk doo xamante suuf nga nekk te li la koy def moom ci bunt bi ñu def wala li la koy def moom moom ci biir géew yi def man damay téegal mbër ba ba dernière minute dama lay dóor ay cenk ba ne lacc laccaaro ci biir arène bi ci biir arène bi ngay furti furti ma bàyyi ya la ngay nakk nakk di bàyyi la ngay nak nakk baal bi ne Philippe man la tiit nga la tiit tey champion moo wóor barki alxuraanu kari Ya wóor nga nekk fa di ci ay loxo naan dañ maa ndiig dañ maa laal ñu pare mën a ko nii moom set teg na le waaye comme si liggéey bi nga tekki na teg na le ba léeree dooy fàtte du ma Mm. man du ma fàtte mm. ndax damaa xam ne lii may def nii lu nekk xañ na ci moo tax damaa yéene jàmm doomu adama yi moo tax à chaque fois ma def ne dama koy jëndiwaat mm. ndax xëccoo la nag làmb làmb góor yàlla moo koy def kuy jigéen demal nga wodd ji wala nga dem jaay ji may ga wala nga dem def ji loo xam ku nekkul góor bu dugg ci làmb bul ñemb waaw ku nekkul góor ci man man lu làmb ji gën di tàng sama yaram di di tàng moo waral ngay mel ni ngay mel ci làmb loolu leer na ndax ñun dañ koy gis ndax bu nekkee si biir làmb beneen nit lay doon gaynde lay doon xamul kenn day dóore day saaga <laughs> day mbëkkee day ngàdde yat bi léeg-léeg yat bi sax xaw dëgg lépp lay def <laughs> Babacar si noonu tamit ba tey rek ah, boo ko mënee dagg boobu rek ñu daal di ñëwaat ndax foofu parti boobu daa mel ni saf na sàpp de <laughs>